on doit un respect total à son excellence le président Macky Sall. Maintenant, on peut ne pas être d'accord avec sa politique et dire que, en avec mais comment on a dem and kenen, voter yewi, voter ar, voter kenen, quelle force ou ken. Mais d'un guise président, ça ne veut rien dire parce que ici, d'abord un, moi je suis chef d'entreprise. Ça, il faut le savoir. Ensuite, par la grâce de Dieu, je suis devenu leader politique. Même petit leader, mais leader politique quand même. Nous sommes santé sur le nous faisons nous, nous en deuxième position. Mais donc, nous sommes santé position.

na xol li nga xamantene moko moo ko day le choix du libre du libre arbitre ku nek na tanal bopam ci akhulay taala très bien mais nak am nañu sañ-sañu wax len li suñu xalaat sans juju len fenn moy bu ngeen di tànn fexe len encore une fois ngir ñëwaat ci critère bi ma len waxon lan moy li nga xamantene da fay jëmele réew mi kanam fay jëmele Kër Massar kanam da fay fexe jamm am ci réew mi il faut retenir une chose mooy ne que sunu dugg ci politique tey la gën a taxaw tey leen ko bu baax a baax suñu dugg ci politique tey la gën a taxaw bu soobee yàlla 2024 dès maintenant la nii nii nii nii bu ñu génnee fii nii ñun ñu ngi commencé liggéey ci 2024 bu soobee yàlla loolu bu yow ngeen jàpp mouvement yeesal ci nii xam nga bi yoon bokkuñu xam nga législative bi bokkuñu ci nii wala ci ne bokkuñu local bokk nañu ci nii ndax ñun ñoo nekkoon au premier plan législative bokkuñu ci nii wala ci ne téye li ma wax len ko ngeen téye ko léegi muy téere bu soobee yalla ak yonente bi 2024 élection présidentielle bu ñu yalla may ñu fekkee ko mouvement yeesal fay bok ci ni wala ci ne